Modou ak Balla Gaye 2 ñoom ñaar nee nañ pare nañ arbitre bi sifflé na combat bi ñoom ñaar ku nekk jiital na sa tànk càmmeñ Bruno Modou Lo ak Balla Gaye 2 ñoom ñaar ñi ngi leewaatoo Bruno booy xool ci taxawaay Balla Gaye 2 numéro Balla Gaye numéro 2 moo ko sut waaye Modou xarañ Lo mi ngi ne tekk di déglu Balla Balla ngi ne tekk ñoom ñaar waaye ñoom ñaar ñi ngi ne tekk Balla Gaye ak Balla gay dugg ci garde bi dóor na Modou Lo na Modou Lo dóor na Balla ñoom ñaar attention dóor mu daanu attention Modou Lo Balla Gaye numéro 2 ñoom ñaar jàppante nañu Modou Lo Balla Gaye numéro 2 ñoom ñaar ñi ngi xeex attention ñoom ñaar ba Balla Gaye ngi dóor Balla Gaye ngi dóor ay perkit moom ak Modou Lo attention Balla Gaye numéro 2 moom ñoom ñaar Balla Gaye numéro 2 ak Modou moom ak Balla attention nu ñuy def Balla ngi dóor Modou fayu na ñoom ñaar ñi ngi xeex attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye a dóor attention Modou Lo ak Balla Gaye ñoom ñaar Balla Gaye ngi dóor ba tey Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 attention ñoom ñaar attention Modou Lo ak Balla Gaye Balla Gaye da ko bëgg a fax Balla Gaye 2 Modou ñoom ñaar Balla Gaye 2 Modou Lo Balla Gaye 2 Modou Lo ñoom ñaar ci suuf Balla Gaye 2 ñoom ñaar Balla Gaye daan na Modou Lo la ilaha illallah la ilaha illallah Balla Gaye 2 daan na